waa acca tey nag Ngoye Fall yow laa bëgg a waxal mais Ngoye yow lan la Ngoye mais Ngoye yow vraiment yow so mën nga ni sa oor yi yow mënoo dul takk ko si màggal mbaa gàmm jàpp gàmmal géeg màggal gi rek ne ko ñàpp te koo bàyyi yow Ngoye Fall mais ngoy yow su fekkante ni yow da ngaa am or yooy takk yaa ngi dégg yow sa jëkkër di la jàppale ci or yooy naan moom moo la koy takkal waa léegi yow te ngay ñetteel waa ana aaw ba boo demee aaw ba lam fa daj ña yow sa xaaj xaajaat bi dajoo ko fa mais ana ñaareel bi tey ji yow sa jëkkër nee na màggal moo ko ñor ak ak gàmm mais bu la màggal ñoree ak gàmm xanaa rasoolulaay war na laa ñor nit ñu baax ñi bu la ñooñu ñoree nag defe naa sa jabar yëpp nga war a teg yamale leen gis nga lii mu lay defal balaa ñun sénégalais yi ñu ko doon rafet lu bi mu tegee yow jox la oor yi nga sol ko noonu la koy defalee aawo bi defal ko ñaareel bi yéen ñett ñëpp ngeen taxaw aligné ko ñu xam ne lii kat lu mu am la mais yow ak moom tubay paate képp ca boole daal noonu nga koy defee ba pare yow nga Fall woyal dëtt mbaa nga woy deret yow tamit Ngoye yow ngénte yi ñi ngi fi duñ la fa gis nga takk sa oor yi seet yi duñ la gis nga takk sa oor yi anniversaire yi duñu la gis nga takk sa oor yi te bërki démb yow nee nga am nga bay def di manifester daal di lambar lambar yi mel ni ceebu mbootaay fu ne nga ne fa naam daraame léegi li ma lay wax te wax la ko leen la yow ndaw si bërki démb jigéen la comme yow. te yow Ngoye bërki démb gis nga fii Faa Mbay Faa ñëpp di ko ñaanal di ket di pour mu lijjanti dem faju ji. gisuñu la nga wër si hôpital joxe gisuñu la nga jox kenn ndimbal kenn génnul na yow yaa ko jox koor muurum koor wala yaa ko dimbali si tabaski wala yaa ko jox xarum tabaski loolu la nit ku baax daan baako mais rango sa or yi mel ni madam la maire rek ah fu ne nga ràngu fa or fu ne nga ràngu fa or ñi lay ràng sax man ak ñi la topp man xaw ma ñooñu lan lan mooy seen pexe ak lan la ñooñu si boppam ñoo war a régler bala comme yow doo nit ah niteel yow tamit lii kuukare jaru ko kuukare duniyaa jaru ko ak bëgg a ah man nitu jamono jii man dañ ma jaaxal ak jigéen ñu njëkk ñaak jigéen ñu mujj ñii ah yii yow tamit bañ ko nag ah lu nekk dafa am foo koy defee jigéen daggan na mu takk lépp mais ak foo koy defee lu nekk dafa am place lu nekk dafa am place mais am na loo xam ne ni yow tamit vraiment ah biir bu daw jàmbur yow tamit defe naa xanaa sa suuf waru cee mën a rocceeku ah vraiment man jaaxle naa quoi wax dëgg yàlla ah. ñun ñëpp ñu taxaw lu magal Serigne Touba ba léegi sama tënk yi Masur Ka waxoon Sara. le Seigneur ton waaye sëñ Saliou Mbacké loxo tegoon na ñaanal sëñ Touba moo dara yaa ngi baax yaa ngi baax man li dara ko haa wala bëri na wala wala kaa ka saw na dama attend saw ni ko yaanu wala dem di biir wala te yaa dara man sa naa te saw na di yaakaar ne ko ni ko yaa dafa jëlee dund mas kaka mas na tudd asaa borom Bamba koo su ko dese nii man Bamba Mbacké koo su ko dese nii man Bamba Mbacké koo su Serigne Touba Mbacké Serigne Touba Mbacké Serigne Touba Mbacké Serigne Touba Mbacké Serigne Touba Mbacké Serigne Touba Mbacké Serigne Touba Mbacké Serigne Touba Mbacké naan naan naan naan bala mu tëjee ba mu jeex wala ko ba fay naan ndax jaral na wasu naa koo dugal na seen i naam bamba mbàkke koo dugal na seen i naam bamba mbàkke koo dugal na seen i naam bamba mbàkke koo dugal na seen i بالله كلاي ولاني إلى جناني حلو منزلي لقمت مما بالحق